toog ba jomaay nekk président ngay soog a def révélation yi da am loo doon xaar wala nguur gi ñu nekk moo la neexul. non non man yàgg naa attaqué Ousmane Sonko. Hmm. ah cest à noonu Fallou. mën nga témoigner si man. Hmm. xam ne man je jamais fait de cadeau à Ousmane parce que lu ma njëkk a mës a gëm mooy que ne ñoom lu ñu nekkee nii si ay populisme la. yow comme bu indi discours système. yow bu ñu indi discours système a système. Ah, ah, da nga mel ni que Ousmane Sonko euh, dafa doon nax sénégalais yi ba am li mu bëgg tey. li mu nekkoon yëpp doon nax sénégalais nga tey je vais dafa am ñaar yu am Ousmane Sonko moom nee takk si arène na arène politique bi lu mu njëkk a teg lu mu njëkk a wax mooy lan système anti système xamuñu Sénégal lan lañ xam pouvoir opposition moom mu ñëw indi notion système anti système notion yooyu mu indi pour la pour wane ne moom il n'est pas un pour wane ne moom. nekkul politicien comme ñi fi nekkoon daal moom sax wax na si ay wax. Euh, daal la donne mais dafa ñëw mais c'est dafa ñëw dafa ñëw ne moom bam premier discours lan la wax dafa ne képp ku fi nekkoon 1960 ba ba fi Macky Sall nekk ñëpp képp fu nekkoon homme politique dañ la war a fusiller loolu la waxoon bi la woon mais lan moo waral mu waxoon loolu parce que Ousmane Sonko dafa ñëw daal indiwaat beneen système beneen beneen beneen méthode politique mooy lan. dafa xam ne léegi Sénégal pouvoir moo fi am ak opposition moom mu ñëw ne moom mooy anti système léegi képp ku nekk si pouvoir ya yow ngi système daal di jàppale système bi daal di système bi képp ku si nekk disons corrompu sàcc nga sàcc sàcckatu alalu askan bi la yow baaxoo yow nii disons traite ba képp koo xam te ne ni yow yaa ngi approché wu si Macky Sall sax amna ay victimes yu bari yo xamne ne def na euh, Idriss Seck victime la si Khalifa Sall victime la si ñaata nit ño xam tay ay victimes lañ ci ay diabolisation Ousmane Sonko. donc ñoom seen 1 yu ñu am tey euh, nekkul seen nattuwaay sen poids électoral mais euh, suite à justement ces campagnes de diabolisation nga yaakaar moo tax ñu am 1 yi.

ko moom mi nga xam ne moom moo la ci am système bi mm. mais képp koo xam ne tey opposant nga te àndoo ko Ousmane tu es dans le système

alors donc dafa am solo xam nga ndaw si dafa posé question bu am solo. ok mm. parce ñu bëri comprendre sama acharnement mën nañu ko tuddee sax acharnement. Mm. mais du acharnement. Mm. li am ni xam nga mooy lan mooy que ne man dama bokkut ak sénégalais yi nga xam ne tey maanaam ay ngelaw moo leen di yóbbaale bokkuma bi nga xam ne ngelaw li moo leen di yóbbaale. tey Sonko ba mu ñëwee teg système anti système ne même képp ku ànd ak man tuye yow anti système nga képp koo xam ne yaa ngi ànd ak Macky Sall wala képp koo xam àndoo ak man sax la wax képp ku ànd ak man Sonko yow tuye avec le système mm. ne ko koo munti doon nekkal docteur Abdourahmane Diouf nekkal euh, Ousmane euh, kii nekkal euh, Bougane Gueye Dany nekkal Khalifa Sall nekkal Idrissa Seck koo munti doon soo àndoo Ousmane Sonko tuye avec le système léegi so àndee ma ànd ak man nag donc léegi téye dans l'antisystème. moo tax ba ba Habib ak Ardo mm-hmm. Ardo man la je ne suis pas d'accord. tu sais mm-hmm. pourquoi. Mm-hmm. yow boo taxawee ah. Ousmane Sonko moo ne képp ku àndul ak moom il est dans le système. donc ko ah. ànd ak il n'est pas dans le système. alors que ñu am ah. des opposants anti-système ñu àndul ak Ousmane Sonko Bougan, il se réclame comme étant un opposant il il parle tellement du système donc Tahirou qui parle du système.

antisystémique de, de, Ousmane Sonko. Victime de Il parle du système. Mm, mm, mm. Bougat, il parle non, non, du système. Non, non, attends, dis-moi, Ousmane Bougan il ne fait pas, il ne fait pas partie du pouvoir. Bougan il est, dans l'opposition. Mais dama ne comme ça Antok Ousmane Sonko mom Bougan xam nga Sonko tay lutam Mais Bougan amdula Ousmane Sonko mais il part du système Mais mais mais dama la xam non waxuma Bougan il fait partie du système non loolu discours Sonko mon man gëwuma loolu su ma gëmoon loolu damay dem ànd ak Sonko xam ne carrément ku ànd ak Sonko yow système ku ànd ak Sonko yaa système parce que sénégalais ñëpp lu ñu bëgg a dégg mooy système parce que xam nañ ne système bi fi nekk baaxul léegi nag loolu mooy discours populisme mooy que ne Ousmane Bougane Gueye bi fi nekk bi nga xam ne opposant la moom kat moom àndut ak Ousmane Sonko donc moom il est dans moom Sonko ne jàppee na ko comme de quelqu'un qui est du système Sonko ak waa bi fi nekk nekk opposant àndut ak Ousmane Sonko ñoom ñu jàppee ko avec le système. ñu naan ko carrément yow yaa ngi réer ak Macky Sall yaa ngi waxtaan ak Macky Sall nii na parti par état dialogue bu amee sax donc képp koo xam te ne nga bëgg a dem dialogue sax ñu ne carrément yow soo kon donc yaa ngi si système bi nga bokk donc loolu moo fi nekk te hmm. système bi du dara mooy pouvoir anti système du dara mooy opposition maintenant ñi nga xam te ñoo fi nekkoon naan anti système anti système maintenant ñoom ils sont au cœur du ñoom ñoo yor pouvoir hmm. te système bi ñu nekk nii tey ñoom benn leen lañ leen leen moo leen leen lañ am suñu on peut plus parler de dans le système ndaxte jàpp nañ ne suñu toon nii moom comme dañu fi nekkoon anti système ñoom ñoo nekk dans le système donc mun nañu wax l'anti système est mort au Sénégal mun nañu wax loolu. non non Ardo Ardo Ardo laa mm. parce que Ardo. Euh, dama ne il faut qu'on campe le débat parce que euh, franchement bu ñu continuer ci lancer bi on peut on va pas mm, s'en sortir on va pas s'en sortir parce que euh, sénégalais yi ñuy seetaan aussi il y a une nouvelle ère qui souffle au Sénégal il y a plus système parce que ils sont au pouvoir Et nous, sont au pouvoir ils vont casser le système ñu gis d'abord. casser. oui. non non non Ardo Ardo ils ont cassé il faut que tu ah. au pouvoir ils vont casser le système là. Mais ah. ils ont commencé, ils ont, il a été investi hier. Il n'a même pas mhm. commencé. Sinon, un premier ministre l'a nommé. Mais Ardo, tu parles, tu parles qu'ils sont au cœur du système. Quelqu'un qui n'a même pas fait une semaine, Ardo, il parle de quelqu'un qui est dans le système. Non, mais attends, non, mais, attends, attends, attends. ne pose le premier acte, là, la le secrétaire général à la présidence du, régime de Macky Sall moom la ñu reconduire mais le système c'est pas des hommes Ardo il est cohérent avec lui le système c'est pas des hommes c'est un mode de fonctionnement de Ardo. Ah, non dama Macky Sall Fallu, est fallu. falu ki secrétaire général daf ko jël changé ko indi secrétaire secrétaire général parce que moom pas woon na pour gouverner mais Diomaye ak wuñu parce que les têtes qu'il les les têtes qu'il faut amuñu personnel c'est une ne nañ secrétaire général présidence ne conduire la présidence le gouvernement parce que c'est un ministre le secrétaire général à la présidence c'est un ministre mais mais quand même parce que nous avons ay tête ñoo xam ni kooku lu que nous avons am ñu ko mën a def tamit toog lire Ardo toog di lire communiqué Ardo il faut pas Ardo est-ce que est-ce que dama poser une question Ardo est-ce que yow est-ce que Ardo parfois est-ce que tu n'es pas nihiliste parce que dire que non non non c'est sérieusement Ardo quand même parce que quand Ousmane Sonko disait le système c'est pas des hommes

man waxuma yow li nga wax Ardo li mu wax moom la man loolu man maa ko xam nga lan la wax dama ne carrément. Mm. Ousmane Sonko boo xëyee le système ce n'est pas des hommes. yaa ngi le système du ay nit. boo xëyee loolu dégg donc donc dañuy wax lan mooy système bi ak kan mooy doxal système bi. système xanaa mënoo wax na ne benn quelque benn affaire bu bu bu bu la boo xam te nii donc mënul mënul mënul def mënul dindi mënul mënul amul mënul def benn mouvement donc dañ koy tuddee système nii rek parce que c'est un système non. système bi dafay nekk di dox. Hmm. dox gu muy dox nag moo gënalul ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk si si askan bi ba tax tey ànd si bi nit ñi bëgg ñu changé ko doxin gu muy doxalin gu mu yor moom la gars yi bëgg ñu changé kan moo yor doxalin bi ay nit ñoo